ak jàmm bi biir limametti point com tey nag ñu daal di dalal ndaanaan ci biir limametti point com koo xam ne nag kenn dootu ko présenté fi nga xam ni moom mooy Sénégal mu bokk ci ñi nga xam ne ñoom lañ gën a ràññee ci li nga xam ne moom mooy théâtre bi toogoon nañ nag lu yàgg kenn gisu ko fi nga xam ni moom mooy au devant de la scène dañu koy bàyyee mu nuyoo ñu daal di jàll ci waxtaan bi Babacar ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay di leen nuyu baax a baax. Euh, lim ma metti rafetlu naa teew yëpp ak ñi koy mhm. euh, naa ne site bu am doole la yal yàlla yokk. Mhm. li fi nga xam ne moom mooy monde théâtre bi kenn du lu waroon ab lu waraloon lu dara des fois nit gi da am si looy nekk. Mhm. Euh, des fois da ngay làqatu ba nga feeñaat loolu jamono la Eh, làqatoo yàgg nga feeñaat mën na dëkk ci fenn rek yàlla rek moom moom feeñ ndax ñun doomu aadama des fois dañuy làq ba yàgg donc ñu feeñ rek la du leneen quoi taxul ma bàyyi théâtre taxul ma bàyyi monde cinéma bi maa ngi sori xam nga man daaray ko ci laa nekk hmm. daaray ko ci laa nekk hmm. eh, Pape mooy ni ma koy faral di waxee rek émission bu ma wax dama koy tudd parce que bon donc moom mooy suñu mooy lépp quoi moo remplacé Cheikh Tidiane Diop bon mu nekkoon poste nag directeur poste amul jot nag bon ñuy xaar nag mais ci biir xaar bi man dama doon def sama ah, am na jot yu ma jot a tourné di ko jaayal sama bopp di si liggéey mais Pape Demba rek moo nekkoon Pape Demba retraite na macha allah léegi ñu léegi ñu démarré quoi loolu rek la du leneen loolu leneen loolu rek la am naa ci yaakaar am naa ci yaakaar parce que li may wax nii rek eh, démb rek. maa ngi waxtaan ak Pape Demba téléphone quoi mm-hmm. Pape Demba mu ngi ci liggéey bi donc euh, dafa bëgg buy ñëw incha allah si kàttanu yàlla mu indi lu am solo mm-hmm. loo xam ne nit ñi daal di ñoo xaaree daal di ko mi ngi nii mm-hmm. euh, ñoo ngi ci liggéey bi daal di ko si kàttanu yàlla day ñëwaat ak force si kàttanu yàlla yàlla mën na ko yàlla def. Hmm. Eh, gis hmm. loolu hmm. merci loolu moom dinaa sawar parce que benn waay bi ñuy wax Matar Babi la daaw ma ko nangu sax daf ma fekk may jaay sama CD est que mën naa la photo nii bon defal benn publicité bu ndaw ma ko amul problème ma ko amul problème bo yalla def ko mu def ko mu ci si yeb di ci wax di ci wax donc euh, am na koy interpréter neneen sax ño xam ne xeyna xamuñu. xamuñu quoi ñi xam deug dëgg moom keroog mo éviter radio sax euh, mën naa tudd tur radio sax waaye radio waxtaan nañ si mu ni ki dama ko fekk mi daan dooleem donc man lima gëm moy liggéeyal sama bop té ma ngi ci génn daan la gëm ni ma faral di wax rek taxaw euh gëmuma taxaw ci bureau di ñaan man li gëm man liggéey la gëm da ngay faral di wax man wala wala mm. ndar la jiddo wala wala man liggéey la xam eh, donc lo rek moo tax may jaayal sama bop bi ngi defet aussi eh, ñu bar rafet nañu ko parce que ku may fekk foofu man jikuma jaay fofu de man jikko dug ci bureau yi dem na Saint-Louis dinaa fu nek mm. fofu la bu ñew bo donc amna benen beneen muy préparé bu bobu génné aussi damay jaar fi ma jaaroon foofu laay mujj ñëw damay liggéey sama liggéey donc nag leen rek moo si xawoon métti tuuti quoi tuuti tuuti euh, am na ñu nekk si net bi bon donc des fois xam ne occasion la si ñoom rek di dugal seen numéro naan kii day ñaan limbal nangam nangam fekk seen poste la jëm seen poste la jëm yooyu yooyu seen wërsëg la man seen wërsëg la man li ma gëm dama koy faral di wax quatre quatre yi may gis nii ak kër yi rafet dama si am te liggéey moom a koy may man loolu laa gëm te yàlla incha allah dina ñëw quoi. waaw waaw gis naa si ay nit yoo xam ne ñi sax donc euh, si ëllëg si bon am ñoo xam ne ñi dañ lay fekk nga jaay ñoo ne gis naa si ne bi kaay ñoo jënd CD nangam nangam am na ay proposition yoo xam ne xëy na ñëwagul na quoi ñëwagul mais xam naa dina ñëw dina ñëw pyramide si dina ñëw lenn rek mu yàq affaire am na ñoo xam ne dañuy nekk naan man la diw fekk du ñoom du ñoom du ñoom waaw yow yow yaay kan la. leeral loolu. effectivement dinaa ko leeral parce que man damay wax paral di wax man làqatuwuma man ma toujours maa ngi nii fàng kuy làqatu du ni fàng quoi ma ne sama numéro téléphone dama ko joxe direct pour nit ñi xam ni man wayaanuma sarxuma damay liggéey ñi koy joxee numéro boobu numéro boobu man sama numéro 77 la. 556 44 71 ya, may dégg ku ma bëgg contacter fan mooy contacter ku ma bëgg jàppale si li may liggéey ba ma ñaan ñaanu ma ku may si li may liggéey pour ma liggéey ma tourner si loolu mu may woowee mais keneen joxe numéro rek gars yi bàbb jëm fa ñu naan rapatia ba sama der bëgg si yàqu kooku du ma ko du ma ko du ma ko nangu quoi parce que man maa ngi suturlu maa ngi tedd maa ngi liggéey maa ngi am lu bëgg yàlla may dimbali kooku ku def loolu nag doo tal di ñesi ñet bi di yelwaan ak yooyu quoi donc yooyu sax fi li nga fekk te man yooyu mo tax arrière parce que man duma dem ba fi mo wara ag nane war a ma xépp may arrière duma ko def man si liggéey nek yalla ngi may jappalé ma ngi dem yalla yalla yàlla doli gën ma jappalé quoi ok inshallah euh, hmm. si barna jafé jafé nak barna jafé jafé barna jafé jafé na jafe-jafe trop mais boo góorgóorlu rek génn si man ma jafé jafé bi sérieusement parler parce que man mo ma dara dara ko ci nek asan baye ñu taxaw man dama dem bind suma film diko jouer di ko jaayal sama bopp di tedd motax man gisuma gisuma jafe-jafe bi sérieusement parler et puis ni muy gërem sénégalais yi sénégalais yi ñoo ci si da ngay gis ko xani ki da ngay jaay mu non jaay jaay di ma encourager li ngay def ni continue ci lu yomb baaxul donc ti ma ngi gagner xaliss xaalis sérieusement parler yaa ngi may jappalé maa ngi gërëm Sénégal yi waxuma bi de yi ma jàppe laa wax di jënd seede bi maa ngi leen di gërëm. ah non sax donc man man même les ministres fekk nañ may jaay hmm. ministres yi fekk may jaay boo xam ne bi gis na may jaay deux fois benn Matar Ba fekk na may jaay. fekk na may jaay non fekk na may jaay bi mujj bi mu fekkee si station bi may jaay yàggul noonu si station bi mu yaay gàddu di ko jaay maa ngi si maa ngi gàddu di ko jaay. Ndeye Ndiaye ma ne ko pourtant ñëw naa si sa ministère ba dafa dem naa fa xëy nag dana si jàpp aussi quoi naa yàq parce ku baax la dem naa benn déposé pour waxuma ñaan de maanaam procès bi ma yore war di ko liggéey pour mu jàpp si gis naa dinaa ba gis madame Diouf ak madame Koli pour jox si pour Matar ba jàpp si te am naa yaakaar Matar ba dina si jàpp parce que gis na may eh, liggéey gis na may liggéey noonu lay doxalee quoi